je m'en vais vous faire la lecture du communiqué numéro 683 du ministère de la Santé et de l'Action sociale de ce jeudi 13 janvier 2022. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 2242 tests réalisés, 608 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 27,11%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 50 cas contacts suivis par nos services et 558 cas issus de la transmission communautaire dont les 331 cas ont été notifiés dans la région de Dakar et répartis entre les départements de Dakar, Pékin, Rufisque, Guédiawaye et Kermassar, tandis que dans les autres régions du pays, 227 cas ont été notifiés et se répartissent entre les régions de Thiès, Saint-Louis, Kaulach, Ziguinchor, Fatik, Kédougou, Djurbel, Kolda, Tambacounda et Louga. Dans le bilan du jour toujours, il y a à relever que 245 patients suivis dans les domiciles ou hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Huit cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés le mercredi 12 janvier 2022. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 81 366 cas ont été déclarés positifs,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 de vos proches et de la communauté et veillez sur les conseils de ce matin axés autour du port correct de masque, bien ajusté couvrant la bouche et le nez, le lavage fréquent et régulier des mains à l'eau et au savon ou l'usage de gel de qualité pour la désinfection de vos mains, et les personnes non encore vaccinées sont invitées à le faire au niveau des lieux de vaccination désignés, après avoir été vaccinées de conserver soigneusement leur carte de vaccination ne pas oublier le rendez-vous pour les prochaines doses, mais également rappeler à ceux qui étaient vaccinés il y a plusieurs, plus de six mois de revenir pour une dose de rappel. Je vous remercie de votre attention. Assalamu alaikum ma communiqué bi au ministère de la santé et de l'action sociale tey Bosu al fan ak janvier biñ ministère de la santé et de l'action sociale Jotna résultat examen virologique yi may ci ñaari junni ak ñaar témèr ak ñeent fuk ak ñett test yiñ def juróom ben témèr ak juróom-ñett ño ci positif positif yoyu sen lim ni la tëddee am nañ ci juróom fukki cas contact ñooñu moy ñi jot ci mbass mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ki yore doomu jangoro ji waaye am nañ ci tamit juróomi téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett yiñ tuddee communautaire communautaire yooyu mooy ñi nga xam ne jot nañ ci mbas ñi fekk xamuñu fiñ ko jëlee wala ki leen ko wàll ñooñu seen lim ni la tëddee ci région yi ci ndakaaru ak liko wër am nañ ci ñetti téeméer ak fanweer ak benn ñu leen fekk ci département bu ndakaaru bu pikin bu Kër masaar bu Géejawaay ak bu ci yeneen région yi am nañ ci ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ñu leen fekk ci région yi région bu Thiès bu Kaolack bu Saint-Louis bu Ziguinchor région bu Fatick bu Kédougou bu jurbel bu Kolda bu ta région bu Tambacounda ak bu Louga ci bilan tey bi toujours ñu xamal leen ne que ñaar téeméer ak ñeent fukk ak juróomi malade ñenn ñi dañoo entrée woon ñeneen ñi dañu leen doon topp ci biir kër yi wér nañu bës ni tey dinañ génn bu si yàlla àndee juróom-ñetti malade ñoo nekk réanimation am nañu ñaari malaad yu génn àdduna bésu démb alarba fukki fan ak ñaar ci weeru janvier biñ nekk ñeneen ñi des hôpital ak malade yi nga xam ne ñu leen topp ci biir kër yi ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na juróom-ñett fukki junni ak benn yu teg ñetti téeméer ak ak juróom ak juróom-benn fukk ak juróom-benn ñi nga xamne ne ñooñu am nañu doomu jangoro ji ci ñooñu juroom ñaar fukki junni ak ñent ak juroom ñaar témèr ak juroom fukk ak juroom ñet wër nañ si junni ak juroom ñent témèr ak ñet malade ñoo genn aduna mu dess ci loxo docteur yi ak malade ñi nga xamne ne ñu leen top ci biir kër yi ñent junni ak juroom ñaar témèr ak ñent malade ministère de la santé et l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu genn aduna yalla xare leen aljana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 ministère la santé et l'action sociale mu ngi woo askan wi ñu gën a sàmmonte ak digle yi ñu joxe bés bu nekk di leen wax nangeen aar seen bopp aar seen i njaboot aarale askan bi di bàyyi xel ci mbir yi di sol seen i masque ni mu waree masque dafa war a muur gémmiñ ak bakkan di raxas seen i loxo saa su nekk ndox ak saabu wala di jëfandikoo gel yu ànd ak qualité di fàttali tamit ñi nga xam ne jotaguñu ñàkku nañu dem ci bërëb bu ñàkkukaay yi bu ñàkkoo ba pare nañu denc seen carte de baña faté fàtte rendez-vous ñu ñàkku tamit fekk bi ñàkkoo ba légui mot na benn weer mën nañu pour ñu jox leen li ñu tuddee dose de rappel ministère de la santé et de l'action sociale muy leen di sant di leen gërëm La télévision nationale à l'heure de